C'est compliqué. Vous avez été surpris par la nomination de Pape Alé à la RTS parce que eh, gis nañ ne euh, coow li commencé na ci bëri c'est vrai que nomination yi on a fait à peu près 17 nominations mhm. en conseil des ministre des na yeneen nomination yi ñëw mais dafa mel ni moom nomination ak euh, ki nga xamante ne euh, moom mooy ka nekkoon ci gendarmerie ba ñu wàcc ko ba Moussa mhm. Fall mhm. dafa mel ni ñoom ñaar ñoo gën a retenir attention nit ñi kii ñëw que ñu wàccee ko xam nga Pape man Pape Alé je hmm. koy tuumal moom lañ may tuumal man. Hmm. lu ñu koy tuumal. moom lañ tuumal Alioune Tine. nga baal ma téye kii bu baax micro bi. <laughs> li ñu koy tuumal moom lañ tuumal tuumal Alioune Tine. mooy hmm. mooy lan on pro Pastef. mais muy man muy Alioune Tine muy Pape Alé on a absolument rien à voir avec Pastef. bañ injustice. Sénégal. du ma utiliser ay mots yu. yoo xam ne dafa dafa ñàkk tegin. Mm-hmm. mais Sénégal y' a beaucoup de ci biir réew mi ñoo xam ne dañuy gis dëkk fu mu nekk. Mm-hmm. gis injustice fu mu nekk. Mm-hmm. nest ñu bañ ko wax soit parce que dañuy ragal wala dañu sàmm seen intérêt. li nga xam ne moom mu opposé Sonko ak Macky Sall. ñëpp xamoon nañu ne jaay doole la. Macky nu mu utiliser. ay ay problème mu euh, yorelu alal réew mi pour éliminer Khalifa ak ak Karim Wade. mënu mm-hmm. ko woon am ci Ousmane Sonko ak ay ñooñam. Mm-hmm. à cause de leur intégrité. ma nag naa utiliser une affaire de mœurs nest pas. Mm-hmm. mu mu utile mu instrumentaliser nag la justice. instrumentaliser. ndam mbir mi Kader Boye professeur Kader Boye. képp ku fi jàng droit nekk na sa professeur. Mhm. nee na mbir mi waraloon jóge ci brigade de gendarmerie fii nga xam ne Adji Sarr fa la porté plainte war foon jóge. Mhm. waaye dafa jóge dem ci benn cabinet d' instruction. Mhm. ñëpp yaakaar ne cabinet d' instruction bu du fa jóge day dem ci juridiction du jugement. kenn xamul ni juge boobu def pour jël dossier bi yóbbu ko en juridiction du jugement. keroog ba ñuy àttee. ñu am preuve bu leer que Sonko dafa violé woon xale bi. ñu ne xaaral ñu condamné ko pour corruption de jeunesse délit boo xam ne jamono Socrate n'est-ce pas. kon loolu la doon def contre Ousmane Sonko et contre militants de Pastef. Hmm. parce que c'était la le troisième mandat Ousmane Sonko ak Pastef c'était la principale menace contre parce que Macky dafa defoon. Hmm. tour de force. dafa fexe ba. ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jàppale woon diggante eh, bi eh, mu xee contre Ablaye pour mu ñu ëpp waat. dafa fexe par des nominations par de l'argent. mu téye leen ci coalition bi. moom Macky rek moo moo moo. nga baal ma wàcceewaat kii micro bi si. waaw Macky rek moo réalisé moo réalisé exploit boobu. Mm-hmm. fexe ba téye une coalition pendant plus de dix ans. par des nominations kenn xamul ñaata ministre conseiller la nommé. Mm-hmm. n'est-ce pas donc euh, la seule menace c'était c'était Pastef mhm. n'est-ce pas mhm. et donc dafa utiliser justice utiliser police utiliser gendarmerie pour vraiment dissoudre sa parti mhm. persécuter ses militants et les éliminer jot na éliminer Ousmane Sonko malheureusement euh, Bassirou a Faye passe à travers les mailles du ndax yàlla moom lu mu dogal kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara <laughs> kenn mënu ci dara voilà c'est njuuj njaaj yëpp pas yàlla def na ba mu euh, justement mu mu mu rëcc bi mu rëccee nag ah euh, ci la décidé que voilà xaaral ma su xaaral léegi ma su ma ma ma reporté élection yi. Mhm. Eh, parce que justement euh, Bassirou Diomaye Faye candidature Bassirou Diomaye Faye bokkul woon ci schéma bi Macky Sall envisage. Mhm. donc mbir mi jaay doole la woon. Mhm. Pape Alé nest pas il a eu le courage de dénoncer cela. ni ko man nii. n'est-ce pas ni ma ko doon dénoncé ñu ko Alioune Tine doon dénoncé indi ko ñeneen ak ñeneen doon dénoncé mm-hmm. mm-hmm. donc Pape Alé c'est un esprit libre mm-hmm. c'est un esprit libre c'est un homme un esprit de paix de justice man bi ma ko xam ne depuis 2STV jamono Ablaye Wade moom rek moo ñeme woon invité ay opposants à Ablaye Wade pas ñu toog nest pas di critiquer le régime eh, loolu da loolu d'ailleurs nest pas jur na digestive ay pression yu bëri de la part du régime de Abdoulaye Wade. kon mhm, mhm. mhm. je crois que Pape Alé il va faire la RTS une véritable télévision nationale. télévision boo xam ne ñëpp ci am seen place. muy pouvoir muy opposition. man mii je crois que depuis 2003. laa gëj a dem RTS. la RTS gëj a couvrir léegi daal xalaat nga fa dem. xalaat nga fa dem avec de Pape dina changer. dina changer. parce que nag c'est pas tous les médias d'État qui se comportent mhm. soo jëlee lu mel ni APS. mais APS agence de presse sénégalaise. Mhm. média d'État la. Mhm. mais APS ils ont tout le temps couvert nos activités. et les activités nest pas. kon ni APS di def ba def liggéeyam normalement. il pense que télévision nationale mënoon na def loolu. rajo Sénégal mënoon na ko def Soleil tamit mënoon na ko def. waaw c'est vrai que ñu ne ma APS. dafa am ay ambassades xam ne dañuy abonné ci APS n'est-ce pas ils sont obligés de couvrir toutes les activités sinon ils vont se désabonner. Mm-hmm. je crois que loolu tamit bokk na ci pression boo xam moo tax ñu ñu ñu ñu nekk équilibré. c'est clair n'est-ce pas par rapport aux différences. wa wàccee gi ñu wàccee général Moussa am nga ci mbetteel wala yaa ngi ko doon xaar. maa ngi ko doon xaar dama koy yàkkam ci woon man je pense que. Ah ko xam ne. Mm-hmm. tous tous les visages de la répression. Mm-hmm. war nañ leen wàcc. biir gendarmerie ak ci biir police war nañ ne wàcc waxama nag ñu dàq leen de. Mhm. wax ma ñu dàq leen gendarmerie radiation la la moom c'est autre chose. waaw waaw wax ma mhm. loolu. Mhm. mais au moins position bi nga xam ne fa la ñu nekkoon. n'est-ce pas di participer ci répression bi. n'est-ce pas war nañu leen wàcc foofu. bokk na ci ay commissaire de police yoo xam ne ñëpp xam nañu fi ci biir Dakar ces gens-là on doit les sortir des commissariats où ils sont. yóbbu leen peut-être feneen. parce que vraiment dañu symboliser la répression. du de Macky la chasse à l'homme contre Pastef. la persécution des partis politiques dañuy wax Pastef rek. mais le le Déthié Fall. le Fatick Déthié le grand parti. le PUR tous ces partis toog nañu ay weer mënuñu réew mi ci seen bala ñu convoqué réunion blocage météo de dem bloqué bloqué leur siège. les partis légalement constitués. n'est-ce pas donc ces visages de la répression là doivent disparaître. n'est-ce pas de de de de l'espace public wartuñ fi nekk nest ñu leen di médiatiser c'est une insulte justement envers les am na am nañ am nañ niveau gouvernement gouvernement bi c'est un gouvernement donc Moussa Fall très bien ñooy vraiment ni ñu ko wàccee moi je suis très content et je pense que aujourd'hui euh, toutes les victimes doivent être très contents du fait que wàcce ko euh, ci biir police tamit il faut faire le ménage euh, waxuma rek ki nekk ci boppu police waaye am na commissaire yoo xam ne. n'est-ce pas fii ci Dakar. commissaire on doit vraiment les descendre. waxuma ñu ndax leen encore mais on doit les enlever des positions qu'ils occupent. et qu'ils ont utilisées n'est-ce pas pour persécuter ay citoyens. voilà. alors la formation du gouvernement 25 ministres 5 secrétaires généraux seulement 4 femmes. bon am na ay agitation à travers euh, les télévisions les réseaux sociaux comme quoi que la parité n'a pas été euh, respectée xool naa sa benn tweet boo xam ne def nga ko ci jàpp ne lii di parité bi dañ ko war a étendre ci yeneen fonction yi et c'est-à-dire que amoo satisfaction ci ni nga xamante ne noonu la ñu monté gouvernement bi nii non amoo satisfaction parce que je pense que dëkk bi hmm. Sénégal fii compétence ñàkkul ci jigéen ñi que ce soit fii ci biir ci biir réew mi hmm. wala ci diaspora compétence boobu bëgg rek am na ci jigéen ñi. Mhm. intégrité jub n'est-ce pas jigéen ñoo ko njëkk ñoo ko gën a incarné ci biir réew. Mhm. waaw bañ injustice gën a incarné ci biir réew ndax ay ñoom ñu jur xa ñoom ñu jur ñun ñëpp. Mhm. donc jigéen ñàkkul ci biir ci biir ci biir pas c'est ça la wax. jigéen ñi ay yu intègre ñàkku fa pour occuper des postes ministériels. Hmm. ñàkku fa ñoom ko li ñuy def rek mooy n'est-ce pas réserver la part du lion aux hommes. moom hmm. la ñuy def te foofu moom ànduma ci ak est-ce que la loi sur la hmm. parité. n'est-ce pas concerne wul les fonctions. Euh, n'est-ce pas euh, euh, nominatives lu mel ni gouvernement. c'est les fonctions électives. ou partiellement électives. comme kon li ñuy def mu ñu wax ne dañu violer benn loi. waaye. Mm-hmm. vraiment du moom la askanu Sénégal doon xaar. Mm-hmm. waroon nañu mën a maanaam am au moins 40 pour cent. de représentation des femmes dans le gouvernement. Mm-hmm. moo tax ma dama yaakaar ne loi de la la parité boobu. nu mu amee ci fonction élective yi pas seulement élective. war nañu ko mën a imposer aussi au niveau des fonctions nominatives. mu ci nomination préfet yi euh, su préfet yi n'est-ce pas yi ministres yi. foofu yépp nañ fa mën a instaurer la parité parce que nag am na liggéey bu am solo boo xam ne ministère de l'éducation bu Sénégal def na ko depuis maintenant presque 40 ans n'est-ce pas mooy fexe ba xale jigéen ñi ñu leen di dugal école ñu des ci école di jàng ba di ba di réussir ci at yu mujj yi nii taux de scolarisation bu jigéen ñi dafa dem ba égalé bu góor ñi taux de scolarisation des de des filles et des garçons mm-hmm. dafa dem ba nekk égal soo jëlee ci résultat examen yi tey le taux de réussite des jeunes filles. Mhm. moo ëpp le taux de réussite des garçons. des garçons waay mais ñooñu yëpp ban mhm. message nga leen nga leen mhm. lancé. <laughs> ban message la président Diomaye Faye ak PR Ousmane Sonko di lancé ñooñu. mooy mun ngeen nekk les plus brillants. n'est-ce pas <laughs> waaye des bu ñu naree. justement euh, gouverner. n'est-ce pas. góor euh, ñi ci ginnaaw ngeen di nekk voilà góor ñi ñoo ne ñoo ñoo ñoo nekk ci kanam ñoo nekk ci kanam. donc ce n'est même pas encourageant. Hmm. pour euh, la scolarisation des jeunes filles. pour la réussite. Hmm. pour la motivation des jeunes filles. Hmm. ñi nga xam ne n'est-ce pas def nañu effort yu bëri pour di leen motiver pour ñu continuer seen jàng. bañ de teel a arrêté pour dem sëyi. n'est-ce pas ñuy ñuy jàng tey soo bëggee mbindaan. pour nga gis mbindaan boo xam ne xale la amatul. parce que toutes les jeunes filles sont à l'école. Mhm. di les encourager. il faut que suñu toogee di seetaan seen télé. Mhm. ñu mun a am motivation. n'est-ce pas pour pousser seen jàng le plus loin possible. Mhm. ce pas qualifié. parce que dañu xam ne suñu loolu suñu ko defee. dinañ mën a bokk si ñu jiite réew. tout à fait en tout cas gouvernement bi defagul un un mois euh, notre débat s'est posé sur la motion de censure à mon avis su ma juumulee le 15 décembre 2023 contre. le premier ministre ou bien tout simplement le gouvernement d'Amadou Ba ñii defaguñu un mois on commence à parler d'une motion de censure mu nekk benn dualité boo xam ne muy commencé comme une bipolarisation de l'espace politique entre euh, l'actuel régime ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekkoon au pouvoir est-ce que débat boobu sa raison d'être actuellement je pense que débat la boo xam ne warul am parce que soo xoolee en 2000 Abdoulaye bi toog na avec cette majorité du PS. Macky tamit bi ñu ñëwee en 2012 n'est-ce pa waa PDS ñu yoroon majorité. n'est-ce en tout cas dañ dañ ko accompagner n'est-ce balaa mu organiser ñeneen élection. kon ñoo war nañ mun a accompagner ce régime là n'est-ce pas pour ñu mun a gouverner mun a satisfaire les aspirations des Sénégalais. Mm. taw baa ngi ñëw le défi des inondations sera là. Mm. taw baa ngi ñëw campagne campagne agricole bi. il faut que ñu mun nekk à la hauteur. de la campagne agricole kon euh, këriñ politicien soxla ñu ko assemblée nationale. en tout cas suñ ko defee. Mhm. n'est-ce pas Ousmane Sonko Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko ils vont dissoudre l'assemblée nationale. suñ ko dissoudre mhm. suñ ko dissoudre. da jàpp ne bu motion de censure amee il faut dem ci dissolution. a toutes les chances que. Mhm. <laughs> n'est-ce pas coalition au pouvoir ñu remporter une très forte majorité à l'élection. généralement parti bu dugg ñu au pouvoir. opinion publique dañu am tendance ne xaaral jox leen majorité pour ñu mun a dérouler seen programme. Mm-hmm. kon ñoom tey n'est-ce pas. Mm-hmm. dañoo war a xam dañu war a xam ne n'est-ce pas suñu suñu voté contre euh, suñu voté une motion de censure mm-hmm. contre le gouvernement de Ousmane Sonko. il va être le plus grand perdant parce que ñoo parce que le président su dee dissoudre l'Assemblée nationale n'est-ce pas. ils vont être laminés. ils vont être laminés parce que l'opinion publique sénégalaise, mmh. non ni les mmh. mais comme dans les autres pays, sous des changements de régime, amna, ni les naan n'ont une bonne chance, une mhm. majorité pour nous dérouler. Donc, mhm. ils seront les grands perdants. Ils seront les grands perdants. Je demande sax mhm. Vraiment, maa ngi ñaan bu bees bi ñu bañ a mettre en avant des considérations politiciennes naan xaar ñu dissoudre assemblée bi. Mhm. ñu profiter de la dynamique bi nga xam ne moom la ñu am à ce mhm. euh, pour ñu am majorité bu rëy. Mhm. à l' euh, mais su dee ñoom ñu ngi def ay menaces de motion de censure et s' ils mettent n' est ce pas en exécution leur menace. boobaa euh, je suis sûr et certain que euh, Bassirou président Bassirou Diomaye Faye dina dissoudre assemblée bi te bis bu ko dissoudre n' est pas ils vont payer les L'opposition Les Sénégalais vont voter majoritairement, mm-hmm. n'est-ce pas, pour la coalition au pouvoir, pour leur mm-hmm. donner une forte majorité et leur permettre de travailler, de tenir leurs promesses mm-hmm. électorales. Donc vraiment, euh, il faut qu'ils reviennent à la raison. la raison et que vraiment ils accompagnent le gouvernement et qu'ils puissent travailler et mettre en avant l'intérêt